yow yaay euh, maire commune bu Diembéring Tombong Gueye ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo lay dalal bu baax di lay fay. Euh, monsieur le maire euh, taw gi gis nañu yàqu-yàqu yi mu def foofu ci sa commune rawatina ci Cap Skirring tey jii lan nga ñu mën a wax ci dégâts yi nga xam ne ñoo am foofu ci sa diwaan. waaw waaw li wax dëgg la li nga wax dëgg la ndax taw moom ren bare na fii macha allah ci Casamance. yaakaar naa ne noonu la fa demee ci Sénégal yëpp tubaab dafa ni après la pluie c'est le beau mais malheureusement ci commune de Diembéring en tout cas ci Cap am na ay euh, kër yoo xamante ni yii euh, taw bi yàq na leen donc euh, dégâts yi dafa bari mhm. parce que boo tuddee Cap Skirring rek da ngay xam ni zone touristique la donc la valeur immobilière dafa am important mhm. maanaam kër yi dañu am njëriñ ay kër yu am valeur la donc la plupart de kër yooyu malheureusement ñoom ñoo am problème bi loolu nag li ko andi bare na la ko andi bare na te ñun ñëpp am nañ ci responsabilité maanaam ñun ñëpp am nañ ci ña nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci gox gi te ñu leen di wax les propriétaires terriens ba ci ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk ci administration ndax administration nag boo koy gérer dafa am benn réalité bi ci nekk bu nu wax ni la continuité de service c'est vrai que le Cap Skirring 73 1973 lañ ko créé entre temps donc il y a eu yi fi ñëw mu am ay jaraaf yu bëri yoo xamante ni ñoom ñoo fi ñëw également maire yi n'est-ce pas le président de la commune rurale depuis 78 ba 2009 ñun ñu ñëw donc euh, ñun ñëpp laa ci boole ñun ñëpp laa ci boole parce que tout simplement état dafa jëloon benn dogal naan ci 78 dafa am benn espace bu ngande boo xamante ni bii daf ko jëloon pour euh, mu aménager ko de sorte que mu loger ci ay projet euh, yoo xamante ni yii tourisme moo ko taxoon jóg malheureusement ci période boobu la Casamance amoon jafe-jafe bi donc population Diembéring population Kabrousse ñi fi nekk yëpp population autochtone maanaam ñi cosaanoo ñu daal di jóg fippu bi ñu fippoo nag état mu daal di reculer mu reculer depuis boobu ñu daal di euh, seetlu ni espace bi ko occupé woon de façon anarchique ci occupation boobu nag ñëpp daal di dugal seen loxo ñu régulariser ay situation yoo xamante ni dañ ko waruloon régulariser noonu ba deux mille deux noonu ba deux mille quinze état ñëw saytu diagnostiqué situation bi yëpp mu daal di ñu jagle ay programme donc bi ci njëkk moom mooy le la l'ONAS l'ONAS moom mooy ñuy yëngu ci wàllu assainissement dañu ñëw daal di ñu euh, réaliser benn plan directeur euh, d'assainissement adopté nañ ko ba pare mu desoon rek ñu mettre ko en œuvre ci at bi mais malheureusement yéen ñëpp xam ngeen ni ak euh, feebar bi. Mhm. Euh, Covid 19 bi lépp dafa taxaw. waa SAPCO également SAPCO ñoom ñu ngi bokk ci ministère du tourisme. ñoom ñu ngi yëngu bu baax a baax fii ci Cap Skirring. Mhm. ci li ñu tuddee le reprofilage. wala la requalification du Cap Skirring loolu mooy lépp la nga xamante ni li ñu waroon def la te ñu war ko def tey pour mu a jox commune de Diembéring xar kanam bu bu bees ñu mën ko def ci Cap Rousse ba Cap Skirring par exemple mënoo gis benn yoon boo xamante ni moom moo lay mën a euh, yóbbu plage tey avec la SAPCO ñu ngi tijjiwaat yoon yooyu yëpp pour que plage ñëpp mën fa dem bu masoon am par exemple bu bu amee par exemple benn euh, catastrophe mhm. waa sapeur pompier ñu mën a dem foofu dem secourir ni ñi mhm. ñëw mhm. nest pas question mbalit mi itam ñu ngi ci kawam bu baax a baax ñoom waa ko parce que xam nga ni ñu ñun fii tourisme moom la ñu yaakaar tourisme nag mënul dëkk ak mbalit donc waa ko tey dañu am jumtukaay bu wóor boo xamante ne ay camion la ba pare ñu ngi réaliser benn euh, centre de traitement des déchets pour que mbalit mi ñu gérer ko avec une philosophie boo xamante ni bi c'est une philosophie très très très responsable donc euh, ça c'est la SAPCO le troisième volet moom mooy le volet de l'hydraulique cap screen ah. yéen ñëpp xam ngeen ne le vingt neuf mai passé vingt neuf mai amoon nañu jafe-jafe balaa ñoo dugg foofu balaa ñoo dugg foofu ci wàllum ndox mi sànq wax nga ko nee nga plan d'assainissement sa diwaan amu ko lan nga ñu mën a xamal ci mbir moomu waaw plan d'assainissement amuñu ko woon amuñu ko woon hmm. parce que tout simplement ni ma leen ko déclirer ci euh, nasaraan moom noonu la fa demee woon cest à que Cap Skirring mu ngi juddoo ci euh, intention état def fi tourisme dans les années soixante dix Cap Skirring soixante dix lañ ko club méditerranéen bi mu ñëwee sampu population yi daal di ñëw occupé occupé ko tout autour m ko occupé tout autour n'est-ce pas am ay phénomènes yoo xamante ni dañ ko seetaan boobu mu ëpp ñu loxo parce que amuloon urbanisme amuloon assainissement noonu ba deux mille ba les années de mille daa xam ni fii am na problème n'est-ce pas ñu daal di ko saytu diagnostiqué ko ba xam les solutions pour que nu xaw a wàññi situation bi ni mu fa demee ça s'est passé comme ça donc l'État aujourd'hui est en de mieux s'impliquer encore ci euh, surtout euh, ci assainissement bi. Mhm. donc euh, depuis deux mille dix-sept mhm. am nañu benn plan directeur d'assainissement de la commune. ren jii la ñu waroon tàmbali liggéey bi. mais ak euh, Covid bi dañu ajandi lépp incha allah déwén moom on pourra donc euh, faire ça. Mm-hmm. tàmbali nga ko wax sànq muy problème ndox euh, eau potable ñi nga xam ne ñoom ñooy say administré ñoom joxoñ nañu baaraam tuuma extension yenn forage yi yu ci mel ni yu yenn hôtel yi comme Club Med waaye it li nga xam ne mooy usine ndox ba fa nekk di la Casamance 16 mètre cube d'eau yi muy exploité ñoom nee nañ looloo tax mënuñoo am ndox bu ndox bu baax yow lan mooy sa kàddu ci mbir mi. waaw ma ne loolu moom nii man euh, partagé wu ma ànduma ci te wax naa leen ko depuis longtemps wax naa leen ko ci euh, chaque fois boo xamante ni bi amoon naa chance justement pour euh, joxe ci sama kat am nga Sénégal nag état c'est un état organisé le Sénégal état la c'est un état organisé un état organisé nag moom mooy dafay jox tous les acteurs ay compétences état dafay dégager ay plage de compétence ay responsabilité man en tan que maire am naa sama compétence les services techniques am nañu seen compétence les services administratifs am nañu seen compétence le citoyen lambda am na droit am am na obligation tey jii booy bëgg installé installer benn projet ci dëkk n'est-ce dafa am ay interrelation yoo xamante ni services yooyu yëpp kenn ku nekk am nga ci sa wàll pour une usine par exemple d'exploitation euh, d'eau mais service hydraulique ñoom ñoo ci gën a compétent ñoom seen rôle ci mbir mi mooy ñu xool ndax nappe bi mën na attan activité bi environnement bi itam du ci am donc euh, gàllankoor mooy li ñu tuddee étude d'impact environnemental service yooyu yëpp ñoom ñoo defoon kii bi c'est l'étude d'impact environnemental ministère de l'environnement waa DEC ñoo koy ñoo koy ñoo koy def bi gars yi defee euh, donc euh, le diagnostic sur la disponibilité le potentiel de la nappe n'est-ce pas mm-hmm. waa environnement ñëw def seen étude d'impact mm-hmm. ñoom ñëpp ñu jàpp ne activité boobu mën nañ ko def à partir de ce moment ñun en tant que citoyen ñu naan activité bi waruñu ko fi def ñoom la ñuy déglu te que Sénégal nag li ko yàq mooy experts yi ci domaine yi yëpp dañ fi bari mooy li tubaab tuddee euh, les totipotis les totipotis noonu rek lañ leen tuddee ka nga xamante ni domaine boo ko laal rek mu naan expert expert la foofu domaine boo ko laal rek mu naan moom euh, expert la foofu totipotent c'est c'est c'est c'est vraiment problème du Sénégal parce que tey dañoo war a jox kenn ku nekk ñu ne la te secteur a ngi ni géré ko man en tant que maire benn avis rek laa mënoon joxe man naa la d'accord naa wala euh, d'accord ma encore que c'est un avis consultatif maanaam sama waaw bi wala sama sama déet bi mën nañu mën nañu ko bañ a sax boole ci bu ñu seeni seeni seeni décision c'est un avis consultatif l'avis le plus prépondérant moom mooy avis bi nga xamante ni technicien bi ak ministère les département les ministères joxe nañ ko. donc ñooñu yëpp ñoo wax ni usine bi du am benn euh, gàllankoor ci euh, la stabilité de la zone ici. Mm -hmm. maintenant le vingt neuf ñu jóg naan dañuy dox dañuy def manifestation balaa ñuy def manifestation bi man waxtaan naa ak ñoom les responsables yi organisé woon affaire bi yëpp woo naa leen mhm. kenn par kenn pour ne leen su fekkee ne ndox rek mooy tax ngeen di dox. ça vaut pas la peine parce que yéen ñëpp gis ngeen château d'eau yi nga xamante depuis euh, donc 2017 le ministre de l'hydraulique réalisé na leen ñaar château la ak euh, ak forage yi nga xamante ni tey jii ils euh, ils sont ils sont mis en service. Mhm. mu am deux forages yi nga xamante ni dañ ko dañ ko dañ ko mettre donc en réserve n'est-ce pas. ma ne leen jaru ko parce que tout simplement ndox ñëw na te gis ngeen robinet bi ci boppu koñ ba ci chef du village. Mhm. gis ngeen robinet Cabrousse gis ngeen robinet Diembéring gis ngeen à beaucoup de Gémbrin. Nous n'en bon, de les façons, ils ont déjà sensibilisé les populations. Donc, fondamentalement, euh, au départ, nous avons une question, une question d'or, mhm. mais nous la question de l'eau, réglé nañ ko ba noppi parce que ku toog depuis soixante treize ba deux mille euh, deux mille vingt mhm. ba deux mille ba non ba deux mille dix sept mosoo gis euh, forage pour quatre shillings. mosoo gis château d'eau ñu naan leen le deux incha allah la ñuy def signature bi pour que ñu ñu commencé euh, liggéey bi. nga mhm. naan yow saxaar bi dafa yàgg. finalement je je je ne comprends pas. Mhm. c'est vrai que c'est une situation boo xamante ni nag vraiment euh, situation bu ñëpp di déplorer la mais mënoon nañ ko éviter. donc depuis lors ba tey commune daf ci dugal xaalis à peu près soixante dix millions. Mhm. tey jii may wax ak yow. borne fontaine mu ngi ci Cap Skirring yëpp problème ndox amatul ci Cap Skirring dafa des rek ñu def la dernière phase ñu tuddee les branchements sociaux maanaam ndox bi ñu jël ko ci bopp koñ ba parce que tuyaux yooyu dugg na ci koñ bu nekk ci Cap Skirring instant yi ak euh, ñu teg leen ay borne fontaine c'est vingt por fontaines qui ont été prévues par le projet vingt bornes fontaines yooyu dana tax population yi amagum ndox le temps que ñu trouver les moyens avec le ministère de l'hydraulique pour def dernière phase bi mooy lu ñu tuddee les branchements sociaux. wax ci politique balaa ñu laa bàyyi euh, ñoo ngi ruumandaat wala sax di laam-laame ne euh, lii di local yi boo mayul dinañ ko dàqaat seen mandat di gën a euh, yàgg tey jii lan moo ci sa point de vue ci dàq googu nee nañ sax xaalis sa tax mënuñoo amal élection locale en deux mille vingt et loo ci xal waaw léegi nag man moom mënuma andi firnde boo xamante ni bi moom mooy confirmer la nga moom la jàpp ni xëy na moom mooy tax ñu euh, dàqaat élection yi mhm. euh, waaye bu dee loolu euh, moo tax ñu kii ko xel mën na koo nangu ndax man tey maa ngi ci kaw commune depuis 2007 ba tey mhm. xam ngeen wopp bu ñuy tudd Covid 19 dafa am ay lorange yu bëri yu mu installé ci secteur économique bi mhm. économie nag moom mooy andi donc les eh, potentialité eh, de, de, de, recouvrement mhm. maanaam euh, taxes ay ñoom l'impôt bu économie doxul rek kenn du ko mën a fay kenn du ko mën a dem recouvrer mhm. ren jii man en tant que commune par exemple damay jël sama sama sama sama exemple rek euh, nous sommes à moins de quinze pour cent de taux de recouvrement maanaam su fekkente ni euh, million mhm. la ñu jàppoon ni moom la ñu waroon am ren tey jii nekkuñu nekkuñu sax à cent cinquante mille cent cinquante mille sax amaguñ ko parce que tout simplement économie do euh, doxul économie état doxul amul benn entreprise bu nekk di liggéey amul benn usine bu nekk di liggéey usine yooyu bu ñu liggéeyee ci lañ leen di imposer ci la ñuy dem fay seen i taxes ci état pour que mu renflouer se caisses de sorte que caisses yi Euh, dépenses yi ñu mën ko supporter dama bëgg sénégalais yi seetlu benn mbir mhm. ñaar phénomène ñoo fi nekk fi mu toll nii suñu recouvrement doxatul maanaam xaalis dugatul ci kees gi mhm. ba pare dépenses yi yokku parce que Covid 19 ay dépenses yu dul jeex la ñun sunu li yi nga xamante ni moom moo nekk sunu budget yëpp président de la république dafa ni ñu mhm. euh, ligne yooyu yëpp dama bëgg ngeen jagleel ko wopp bi mooy euh, les dépenses. liées à la COVID-19. donc ci kaw itam au niveau donc central xam naa ne noonu la nekk di demee foofu avec la force euh, COVID-19 dépenses yi bés bu nekk dafay gën a tar ba pare nag xaalis duggatul ci euh, caisse bi mais finalement dépenses yi nga xamante ni moom mooy tax ñu dem vers des élections apaisées nan lañ koy assurer beneen bi moom mooy élection balaa ñu koy def dafa am ay étape dafa am ay calendrier boo xam dafa am benn boo xamante ni bi euh, dañ ko ponctuer par des des des étapes par exemple deux mille dix neuf date bi nga xamante ni ci la ñuy mujjee organiser élection ba tey jii en deux mille vingt mais entre temps am na ñu bëri ci xale yi nga xamante ni am nañ dix huit ans dix huit nag moom mooy âge bi nga xamante ni moom la nit war a am ci Sénégal pour nga mën a donc aspirer à des Euh, à, des droits euh, électoraux, mhm. à, à, des droits éle éle mhm. mhm. n'est-ce pas Donc, entre-temps, xale yooyu yëpp su fekkente ne dañuy dem à l'élection à des élections au mois de janvier par exemple wala au mois de mars comme ni ñu ko waxee woon mais ñoom dañ leen di dootuñ ci bokkati donc su fekkente ni itam la yi di euh, njot ni élection xëy na nañ ko euh, euh, toxalaat mhm. man damay jàpp ni c'est pour une cause boo xamante ni kenn mënu ko natable parce que cause bi elle est elle est une cause noble mhm. que euh, situation bi moom moo ko laaj dañu nekk ci benn situation boo xamante ni bii mhm. leneen lañu war a tal waaye mënuñu dugg ci ci yoo xamante ni xëy na sax dana gën a accentuer crise bi nga xamante ni moom moo fi nekk. olof Ndiaye duma wolof nag waaye moo wax ni. <laughs> gumba tal na leneen lu dul. te biteen dégg nga d'accord Sénégal dafa nekk ci crise sanitaire. amatuñu xaalis. sunu euh, agenda mhm. préélectoral ñu chamboulé ko parce que tout simplement les mesures barrières wala euh, les mesures liées euh, aux dispositions qu'il fallait prendre par rapport à Euh, à la pandémie. Mhm. couvre-feu yi euh, état d'urgence ak yooyu yëpp tax na sunu agenda bi ñu chamboulé ko mais comment est-ce qu'on peut aller vers des élections apaisées su fekkente ne étape yooyu yëpp on les a pas assurées. Mhm. Ah, monsieur le maire. kenn ko Covid rek moo ñu ko teg. moo ñu ko teg. moo tax ñu euh, war a delloo ci sunu xel ñun ñëpp dem ne sunu Sénégal la ñun ñëpp ñoo ko bokk. donc euh, sunu ennemi commun bi tey moom mooy Covid ñu jàmmarloo ak moom daan ko soog a songaat leneen. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax monsieur le maire Tombong Guèye. waaw maa ngi lay jégalu bu baax Elisabeth. di leen euh, gërëm itam.